sarax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa combat ba war a dox ca diggante Modou ak Ama Baldé le combat royal tant attendu diggante sëll bu ndaw ak xarañ loo boobee la journal ba ñëw ca na mu gën a ñoom nag tàbbi nañ ca xalaatu combat ba buñ ko naroon a def wii kulo te fas yéene koo defee foofee ci arène nationale diggante Modou ak Ama Baldé moo cay bénéficié wu bile combat royal buñ ko fas yéene woon a tëgg wii kulo ci arène sànni ci seeni kàddu muy Max Mbergane di Balla Diouf di Boy ku ci nekk joxe nga sa xalaat ba xam Modou Lo ak Ama kan mooy bénéficié ci combat bañ a ñu ko tëggee wii ku la ci arène nationale loolee avantage lay nekk ci Ama Baldé amul kenn ci ñoom ñaar ku ci ami problème bu ñu koy tëgg wii ku la ci arène nationale waaye am na ku ci ëpp avantage bile combat bu ñu ko amalee foofee plus lay nekk ci Ama Baldé ndax fiefam la waaye tamit bu ñu a tëggee combat ba lay xew ca digg géew ba lay xewee bu dee Max moom it fa Balla Diouf daanele fa la àddoo moom la mu xamle mooy buñ ko tëggee ci arène nationale ci huis clos la volonté et l'engagement feront la différence buñ ko mën di tëgg ci biir réew mi it ba ak engagement ba képp mooy def différence ba en ñoom ñaar ñëpp lu bees lay nekk ci ñoom ndax kenn mësula bëre ci huis clos ku ci mës di bëre ba nga tàmbalee sa carrière ba léegi ni say supporter boo gëstoo da leen di gis a décider sax mën nañoo jàpp ne pression lay nekk ci ama waaye li muy nekk pression pression ci kawam mënu ko déstabiliser ndax ku xam Ama Baldé xam ne champion la Modou Lo it jóge ga muy jóge parcelle ñëw bëri si Pikine loolee du dara ci moom ndax ay mbapatam yu ci bëri Pikine ak Géejawaay la ko bëree lieu baak forme ba ñuy tëggee combat ba jàpp naa ne mënta yàqal kenn sa bés bu nu jàllee ca njiital njarne production moom la promoteur Khadim Samb commencé naa démarché ay combat gannaaw ba mu jógee ci combat bu réy ba doon dox ca diggante Eumeu Sène ak Bour Sine diggante Aline Seyde ak ñàq jariñu moom Khadim Samb beneen combat moo nekk combat bi ko teree ne mooy diggante Moussa Ndoye ak Ama Neex moom la mu xamle ca journal ba mooy bu ñu waxee lu jaadu ñoom ñaar danaa tëgg seen combat bilee combat bu ma ko tëggee wii laa koy def te danaa ci liggéey ak 2STV bu boobaa lu mësul am ci làmb laay def mooy journée restez chez vous bile daal man Xaadim Samb pare naa ngir testé ko journée yu mag yi laa fay yóbbu diggante Moussa Ndoye ak Ama Neex diggante Alioune Seyde ak ñàq jariñu xam ne kenn bëreewut kenn deful muy situation bu metti situation bu compliqué ci ñoom rax ca doole ñu ne situation bi ñi mu gën na ci mbër bu méttee metti la moom la mu xam ne mooy heureusement ba làmb ji dama ko boole woon ak mécanique bu làmb ji doxul ma dem ca garage ba bu dee Cobra nag moom la mu xam mooy Sénégal gépp a yëpp mbas mi ngay mbër wala loo mën di doon yaa ngi yëg mbas mi man message ba may lancé ci président laa koy jëmale ngir mu gestu ndaw ñi bu dee soq ma waroon a jano gàmmu géy de moom la mu xam ne mooy làmb ji mooy suñu gañpee mooy suñu métier ci la ñuy li ñuy faje suñuy soxla fukki weer yi ñu toog liggéey ñu ko loolee suñu pertement la gannaaw Xaadim Sàmb nag beneen promoteur ba pare ngir tëgg ay kombaam à huis clos mooy Mamadou Dieye moom kombaam ya mu taxawal diggante Gris ak Abdou Diouf Jackson Senior ak Naaru Sokas pare na ngir def ko huis clos yi le combat pare naa ngir def ko huis waaye day fekk nag état bi jàpp ci ñépp xam ne wut sponsor dafa xaw metti rawatina ci période boo xam ne sponsor bi xam ne ne a ëllëg incha allah.